lii la c'était toi c'était moi c'était notre génération gis nga histoire buñ ko buñ ko defalkee histoire duñ ko defalkee histoire ensemble la xale yi ni ñu war a mel man su ma sañoon duñ ko mel mais nii lañ war a mel yow da ngay wax tey may ma tuuti rek mais ma et de maa ngi ñëw Omar c'est est-ce que tey bu ñu xoolee ñun ñëpp ñëpp ñëpp nan la ñu mën a def ba mentalité bi changé ba nit ki xam ni que lii muy yàq moomeelam la moom moo ko moom ba pare. mais moom laa lay wax nii xam nga lu tax mentalité bi du mën a changé. Mhm. parce que kii li muy wax politique éducative yi école boppam la ñuy régénérer violence. da ngay jël benn xale jox ko kaye outil pédagogique kaye du pour li ñuy bind rek de kaye dafa am sens kan lañu def ci kaye bi. ay mbër jag ba wër mu téye fetalam kan lañ def ci kaye bi Modou kan lañ def ci kaye bi Balla gay xale bi tiim loolu dafa luñ ko ci soxna Jaara Buso dafa luñ ko ci Ibou Sakho dafa luñ ko ci eh, Gandhi mais mu dem ba ñoo ñooy référence ce mm-hmm. qu'ils font là c'est comme ça qu'il doit faire beneen bi mooy mais violence bi ngeen di wax c'est une violence physique violence bi gën a garaaw yow yaa ko wax léegi violence bi ñuy def ci retraité yi yow defoo di yaa ngi koy dénoncé léegi mais retraités yi liggéey nañ au moins ba retraité mais xale yi dañoo retraité te liggéeyaguñ seen avenir point d' interrogation la ñuy gis benn stade ñu tabax ko à coup de milliards ñoom lekkuñ naanuñ orienté wuñ leen université amuñ liggéey ñu nekk dans le chômage et vous voulez que ces gens la rest zen te voulez que ces la là développent une citoyenneté non loolu pour man ku koy wax vraiment dangay ngay analyser ni la neexee mais loolu mënul nekk beneen bi nga xam ne nii moom laay terminer gis nga Macky Sall discours am bi mhm. keroog stade lenn rek la wax ci olof mën nga ko tegaat dama ko suivre à la lettre parce que Macky Sall léegi damay contrôler ay discours am mhm. à la lettre lenn rek la wax ci olof mooy dënk naa leen stade bi pour entretien bi et il a raison de ce de vue là parce que l'une des plus mauvaises mentalités de ce pays mooy xamuñ lan mooy suivi xamuñ lan mooy conservation université avant ñu koy defar tubaab bi dañ ko bàyyi woon mu ne booy en un temps record ñu yàq ko mm-hmm. gis nga nit ki li talaa di wax ñëpp di ko nangu le premier droit d'un être humain c'est un droit à une bonne mentalité mm-hmm. léegi nag mentalité bi lijjatuñ ko président bu ñëw tabax ay statue defan ay autoroute yëkkati ay xeer li Cheikh Amidou Kane di wax l'asphalte et le goudron l'asphalte le béton et le goudron l'asphalte et le béton et le goudron ci biir ñu rey école bi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yoon war muy ñaar imaam yi wala sëriñ daara yi ak enseignants yi ñooñu lañ gën a ñàkkal fayda imaam la ñuy jàpp yóbbu ko di ko pamti pamtee sëriñ daara bi ngay gis buy jàngale ci ay mbedd ay ay kër yu yàqu ay ay baraak lay jàngalee à côté c'est des étages qui se lèvent qu'est-ce qu'on apprend là-bas aux gens xam nga léegi école lan la insertion professionnelle management commerce international pour loolu mais éducation bi dindi nañ ko l'école et devenue le lieu de l'instruction kon li ñuy am c'est un phénomène tout à fait naturel et je vous le dis mm-hmm. suñu retourné wul ça va crescendo dafay gën a jëm kanam kenn mënu ci dara. d'accord alors euh, euh ñu euh, gis ci ci ci ci lu ñu wax yëpp par rapport à l'éducation euh, par rapport à la violence mmh. lan la ñu mën a def pour justement euh, changer le comportement changer les mentalités de ces jeunes ah, de nous jeunes xam nga boo nekkee ci société mmh. bala ngay wax l'état d'abord jàng société bi nga nekk nga nga def comparaison bi ak démb xool ëllëg nu muy demee. boo jàngee démb da ngay xam ne xale bi bu juddu woon ci kër gi waa kër gi ñëppay yar mu génn kër gi dem ci mbedd mi waa mbedd mi ñëpp di yar kóllëre papa jeeg bàjjen yu ci koñ beeg.